بسم الله الرحمن الرحيم مبكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نونجي لين دي نيو تدي لين زاري نيب دي نيان بروم سبحانه تبارك وتعالى مدفن توفيقك توفيق تيسير بجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم بلول جالي نيونغي توقك سنو سرين سنو ويجور سرين بسير مبكي خلقوم di ko ñaanal borom bi subhaanahu tabaraka wa taala mu guddal aw fanam te wéral ay cëram ba naal yi mun naa la liggéeyal boromam ci diinay lislaam ak ci yoonu Serigne Touba mu defe ko ci anam ga gën a mucc ayib mu bëggoon a yëkkati ay kàddu nag jëmale ko ci weeru koor kon Serigne bi bismillah alhamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين bokki nooy leen nuyu di leen ziyaara di leen wax assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa ci mbokk yi di lu am solo moy ben pong ci pong di ni te moy wéru koor sunu bëru wax ci alquran ni shahr ramadan alladhi unzila fihi alquranu hudan linnaasi wa bayyinatin min alhuda alquran wéru weeru koor bi nga xam ci wéru ci alquran tay di fukki fan ak ñeent ci wéru baraxlu ñuy sentu wéru ni ñi am ci lool di ñaan suñu borom mu agsi ci jamm fekk ñu ci jamm may nu ak tal ak fekk ban mën ko def ni ko suñu borom bëggee waaye mu doon weer bu am solo wax mën naa fonk ndax euh, suñu kilifa di Serigne Touba di ñu wax weeru koor da ko daan teer ni ñuy teru jëm di waaj ñëw moo tax weer woowu mu wala ci géej gi waaye boobu ci ay ay tuunaak yu métti la nekk sax ndax wax nañu ni boobu xamul lan mu ngi xamal ni tey la weer bi feeñ dina demee sax mu ba da koy bind ci aw kii waaye gisul ko mën a doyloo ci wàllu diinam ci kenn ku mën a wax ak benn wet yow weer boobu bi mu duggee ci bind xasida googu mu tàmbalee ci yaa xayra dayfin ata bil bishri wal madadi اهلا وسهلا وترحيبا بلا عدد لا زلت ضيفا كريما زائرا ابدا مكرما بخير الطاعات والسدد مويبي وهب مؤمنك وهك جم ويمي ويرو ويوتد يوم غنجي غنجي غن غن عندنا بيتي عندنا اي اي تب اي مدن اي تبو ni ko ahlan wa sahlan maa leen di yaatal di la wax sahlan di la wax tarxiiban bi laa xam di yaatal yaatal boo xam ne amatu yoon kay weer wax ne ba mu koy woor weer na ko war na ko ba mu jeex wala seen village mas nag mu weer na ko ba jeex fépp ñoom du ko jigéen ñi waaye dara dara lu mu jëfale ba sax yoru waaye nag boobu mu doon doxe rek dama di fàttali bu baax ci ab jullit rawatina ab murit waaw weer war bu mu weex fépp ñoom dugg ci gémmiñam de bay jeexit mu ne ga gunge yaasal bushaaraati bil ayaati wa suwari lishad bi kawli ya abdal muhsin suwari yow borom mbégte yi yow mi ñuy indil alquran muy ay alquran yi indi nu saali bi maa ngi lay seetlu ne jàmm yàlla la kon lu sëñ fonk képp ni mat naa fonk ci tari bi mooy bu ne mooy sëñ bi jaxate am na ay jamono wooye wooye dugg suñu dañu wax ne kooree njëriñ moo di aw yiw waaye kenn du ko muñ ku du gëm yàlla gëm yoneen ba séenu ca pay façon noonu um di sellal faw ke rafetal ba xëy matal dese koo baa kii gileem ak ñay mun nag léegi weer waa noonu yonte dana foofu mu leen weer alxuraan ma ci dénk sa bopp dañ dénk ñu fàttali ko ci alxuraan ndax nit kat weeru koor duggee war naa dugg war naa xam ne weer bi mooy weeru alxuraan mu tàmbalee nag fonkaay alxuraan beneen fonk bu yees jàpp beneen jàpp bu yees ñu def tadabbur di ko seetantal ndax yàlla kat day digle ñu def tadabbur fi ayatihi def tadaku fi ayatihi alquraniya def tafakkur fi ayatihi alkawniya moo tax dañ daa am loo xam ne dañu wax ne ak tadabbur fi ayatihi alquraan al tadabbur fi ayatihi alquraan ni ñu koy def ak tafakkur fi ayatihi alkawniya yonent bi dama defal ne alxuraan ji dox ci kaw suuf si kaw suuf si moo tax fàttaliku histoire am fàttaliku saxaaba yi daan dundee ci weeru koor gën a fonkaat alxuraan fàttaliku ko gën ko dundaat a boo dundaat ko lu am solo la ci noonu ndax weeru koor bu ñëwoon daal nit war na ci yeesaat peq ndax dañuy nett leen yonent bi sa mas na yéeg ci kaw mimbar benn ajuma dal ne amin tawa tutnawat amin toga hmm. tutnawat amin ɗum ñetten mo wacce waccino peñu de kadi sona yeeki kambere o amin ñetten ma yeeki kambere juulidema ñetti occasion yo xam day kum rëcci bom ba tax ngay de tabisora ñàkk sasa ko yadama yaa sori noon man ne ba jëkk mooy weeru a amee occasion ñu jégal ko jégaloo ci ba tax ngay yàlla kooku yàlla na ko yàlla sori ma ne ma baal ma beneen occasion mooy kenn ci sa ñaari waajur nga fekk di kaw suuf sa ñaari waajur nga fekk di kaw suuf maa nga fekk fi kenn ci ñoom te amoo seen ngërëm ak ngërëm waajur mu ñoom amoo ko ba tax nga dee tàbbi sax mën ko am mën ko am yàlla na ko yàlla sori ma ko am bu ñetteel bi mooy ñu tudd yonent bi fi yow nga ne sallallahu alayhi wa sallam foo def ku ne da nga mucc ci sawara mun nag occasion bi comme doom ba jàll ñu tudd ma fi yow julli woo ci man ba tax nga dee tabbi sawar nena ko amin ah, nena man ko mun yàlla def tabal yàlla def tabal sawar yéen ma def leen ko amin kon ñetti yooyu ma di bàyyi xel ñu fonk alxuraan fonk julli ci yonent bi sansu fonk toppatoo ci ay waajur mooy sa waajur topp ci mbokk yi yëpp ko toppatoo mhm. leen ci ñu wéru koor sëriñ bi di wax ci koor mooy fa sawmu mhm. an yasuuma kullu udwi mhm. an kulli ma yufdi fatan li sawi woor nag mooy soo cër bu ne day woor ci lépp lu yóbbu nit ki ci ay njóom ci baa yóbbu ci dund la def ko def ko sa cër daal war ci dégg dégg mooy kon woor sa cër yëpp war a woor te wax nag léegi am na ci ñoo xam dañu woor ba ngoon nag ñu mel ni nag wuy lekk baadohum yaakulu akla al baqari waqta futuurihi waqta sahari xataa yakoona batnuhu saqila جدا فصار قلبه مشغولا عن ذكر ربه ويدعي الصيام وهو لا يهوي فتيلا في nit ki am na ñoo xam ne dañuy bu ñu waa bu ñuy ñu ndogu mhm. nagu te mu lekk dañuy lekk rek ba seen biir dis gan mhm. tal duñu tal sa tudd yàlla duñu tal fàtte yàlla boobaa ne léegi eh, koor waaye lu toll fatil ci aw yool de mhm. duñu ah, ko am yoon xeem san laa mi nga xul dañu am sa jëw ci woro ci wax yun dee kon sëriñ bi noonu la dénkaane lu ay ci wàllu koor fonkoon ko lool teeru ko muy dem mu gunge ko waxit li nga xamante ni mooy koor dëgg dëgg koor mooy eh, sa nga war a war sa loxo ba du ci laal lu aram sa nopp day war ba du déglu aram sa bët bi day war ba du xool lu aram su tànk yi nga wooral ko ba def la wax donc nag fa fa sawmu ci gàttal an yeesuma ku lixutu ku limaa fi defa tan sa pan rek ak ko soññee ci koor gi mm-hmm. ñaan suñu borom defal ndimbal defal na tawfeex mm-hmm. defal na mucc defal na xéwal mm-hmm. def ñu àgg ci jàmm